waaw am na ñoo xam ne dañuy def planning planning planning boo ko defee soo reprendre até foofu am nañu cas yu bëri dañuy am problème mais yàlla may nañu ci sutura am nañ ci garab yoo xam ne boo ko boo boo boo reprendre até rek bëgg a jëlaat rek bu ñu la ko joxee da ngay gis dafay nettoyer sa biir bi même bu fekkee ne te trompe yi dafa bouché woon wala yooyu yëpp da ngay gis da koy débouché très rapidement garab yooyu ñun yàlla may nañu tawfeex am nañ ko euh, moo tax planning baax na mais Euh, képp ku ci jóge na nga xam ne yaa ngi ci danger mën nga jëlaat mën nga bañ a jëlaat mën nañu dimbalaate nit ki ba mu mën a dellu subaat ci wàllu juróom doomam incha allah